toujours dans votre acte du jour de ce 19 juillet 2024 ginnaaw bi nga Touré Amalna point de presse fan yu ñu génn daal di attaqué bu li di régime Macky APR muy ay camarades am ko ci bilan Bassirou Diomaye Fay à la tête de la République du Sénégal Moum Aminata Touré Nak Kanani, mankeul ni manqué wul ay tontu jëmale ko Yo ci ay

di nuyu ñëpp ñi leen di seetaan mm-hmm. eh, yaakaar naa li may wax bu dee leer na kenn wax ma après ma continue macha allah mi ngi mi ngi ñu ngi lay dégg bu baax a baax monsieur Sarr waaw eh, dama ñëwoon rek juste pour def benn chronique ci waxtaan bi ma seet déglu boo boog léegi mm-hmm. eh, comme dama waroon def tey benn vidéo pour euh, tontu tata Mimi Touré mm-hmm. mais comme ki ko représenté mu ngi toog foofu ko ko Euh, c'est juste rek pour wax né hmm. sam papa dafa ma daan wax mu ne njool ma né ko waaw mu ne ma butéel bi. limi hmm. euh, li sañ bi di feeñ rek la butéel bi defoon. Hmm. pour dire que un juriste un maître un grand euh, juriste bu toog foofu noonu politique warul mun tax muy accepter yenn wax yi parce que c'est un maître quand on dit maître nak moy kuy jàngale parce que su bëggee wax ne Macky Sall dafa ñëw pour. L'égal Macron ou la France Macky est plus grand que Macron de 4000 fois 4 pays mon frère pour voir c'est plus de 57 pays et pays qui ci européen pays qui ci Asie là avec Afrique pays qui ci Afrique la ak Asie donc mu ngi bëgg ONU actuellement Nations Unies bu demee ba Guterres jël ko recevoir pour ñu waxtaan 4 pays. c'est parce que 4 pays, ont doublé doubler l'ONU parce que l'ONU actuellement dañ ko bannir ci parti yu bari qui ci monde bi lolou mo indi 4P c'est pas l'affaire de Macron ni l'affaire de Paul Biya pour sa information nga yobale ko benen bi dégg naa ci sa une intervention nga ne <clears throat> Ousmane Sonko ak Diomaye ENA lañu ñu école bi gëna ëpp notoriété ci Sénégal Abdou est sorti de nulle part ma wax la ne je suis pas là pour défendre Abdou Je ne suis pas là pour défendre relation mais c'est pour vous dire que Abdou tout récemment en France la pare graduation diplôme ba nga xamante ne moo ëpp doole diplôme bi ngay génne ENA parce que ENA tu sors avec bac plus 5 ans et Abdou a dépassé là-bas et puis c'est un journaliste et pour être journaliste il faut au moins trois ans d'études universitaires parce que da ngay am licence nga yóbbaale boobu Benen bi moy, caisse noire bi ngeen di wax ni. caisse noire premier trimestre rek le le la moo le premier trimestre c'est pour janvier février et mois de mars le 2 avril le est ci donc le 2 avril que la caisse noire bi passé Le devait réfléchir mille fois avant de wax l'élection d'affaires élection qui dit caisse noire dit élection qui dit caisse noire dit des interventions yi nga dit donc premier li ñuy wax vingt quatre pour cent moom moo génn ci caisse noire bi et puis waxal sa président ne ko ak yaa Mimi Touré nga ne leen caisse noire du xaalis bu ñu jël wala benn gap bu ñu installé biir palais neefal trois mois la ñuy jël joxe ko bu ñu ko joxee bu trois mois yooyu passé ñu jëliwaat ko indi ko wax leen loolu pour ñu xam ko pour ñu xam lan mooy caisse noire parce que euh, souvent da ngeen di dem ba induire sama mbokk bi dëkk fële Kédougou Fongole bi ci ay erreurs ya nga xamante ne quand vous me dites que ils sont dans la manipulation c'est yaakaar naa ne le pouvoir actuel ñoom ñoo manipuler ba toog ci kaw léegi nag xamatuñ ku ñuy manipuler parce que soy manipuler ay nit yo jàkkaar lool bo demee nak ba jité len kan ngay manipuler moom moo indi seen sorties yi ñuy def nga xamné ne sont des sorties très maladroites ay sorties nga xamné ay taf yëngal la négociation Sonko jomay makissal man j'avais dit avant ñom ñuy génn prison avant ñuy génn prison bala ngay génn fo peut-être ñom mën nañ la ko daggal jox la ko nga yobale ko j'avais dit un une coalition en téléchargement ma tudde won ko joo kon yaakaar naa ni ñoo déggandoo kàddu yi nga xamante ni kii di saax le sénégalais d'Allemagne daal dina koy tontu Mimi Touré ak kii nga xamante ni mooy le président Bassirou Diomaye Faye ci sorteem ginnaaw bu mu ñëwee lépp luy fonds spéciaux ñu tuddee ko caisse noire war a nekk foofa ca présidence fekku fa dara soit président dafa renseigné wul ndaxte du présidence caisse noire du GAB bo xamanteni dafa nek fofu ci présence présidence du sotti fa milliards yeb dafa don lo xamanteni dañ koy voter à l'Assemblée nationale par trimestre lañ koy voter ñetti wër ñu indil la tégal la am fo xamanteni mom moom nga koy muy sa politique sociale mom ci bopam président Bassirou Diomaye Faye wax nako chaque jour ñu indil ko ordonnance chaque jour ñu nako da ngay dimbalé ki dañ ko wara opérer opéré wala duñ ko opérer Bassirou Diomaye Faye kañ la egsi ci Sénégal le 2 avril premier trimestre bi kañ la le premier janvier ba le 31 mars kon premier fonds spécial bi concerné wul ki nga xamanteni moy Bassirou Diomaye Diomaye Faye ku concerné prédécesseur am bi fi nekkoon di Macky Sall te nañ jàppandi du 1er janvier ba nga xamante le 31 mars amna le lu bare lo xamante xewna fi ci Sénégal jëmale ko ci corps corité té lool yëpp président daf ciy jël di dimbale ay nit ay élection jàll na fi amna ay opération yo xamante ne na fi kon Bassirou Diomaye Faye su ñëwé le 2 avril je crois que préoccupation ci wàllu loolu deuxième trimestre bi nga xamante ni votel nañ ko ko amana du 1er avril ba le 30 juin avril mars mai ba 1er euh, avril madame, le 30 mai Moi, deuxième trimestre Bob. boobu deuxième trimestre Bob, je crois que jot na ko ndaxte moom taxaw na 40 milliards ay producteurs moom changé na garde-robe am moom jël na ay nit en charge pour ay opération am kon gis deuxième trimestre am soit dafa xamul wala dafa laajtewul xamul nu état suis en pour de dafa des ni.

gisatuñu seen bop ci ONU motax ñu tek 4P lolu motax regrouper na lu upp 57 pays donc Mimi Touré lu muy wax moko gëna xam Sénégalais mais dafa xam ne dafa jakkalo ben askan bo xamanteni comprendre ñu motax mu indi ben li nga xamanteni manipulation la ak discours populiste kon donc je crois que Sarr indi na ay éclaircissement jëmale ko aussi ci déclaration bi nga xamanteni président def nako ko nee na sooy manipuler ay nit di leen manipuler di leen manipuler ba nga egg au pouvoir kan ngay manipuler ti dootoo manipuler ti kenn parce que ko mal fait lan ngay jël mooy mooy ay discours yo xamantene ay affabulation la ay discours la yo xamantene ne tient pas debout yow mi koy wax sax gëmoo nga dal di koy tek pour jaxasse askanu Sénégal alors que nag Sénégal dafa bari ño xamantene duñ utiliser sen xel pour di réfléchir xol lu mën nek ak lu mënul nekk motax ñom dañuy def li nga xamantene moy hypocrisie intellectuelle parfois dañuy utiliser ay mots yo xamantene ni ku jang mo koy te ñu dal di koy déformer tek ko yow ba nga xamantene soko déggé da ngay foog ni ñi ño nek ci dëgg alors que dañuy victimiser wu alors que la ñuy wax dara amu ci a ah ni kasare amu ci muy réaction bi nga xamantene qui kii di le sénégalais d'Allemagne, du patron Diaspora News TV Il na ko jëmale ko ci ay éclaircissement ci sortie Mimi Touré ak kii di président Bassirou Diomaye Faye